Jigen, xalé jigen surtout pour ñu ñom ñu japp ci légui désormais liggéey ci changement climatique fexé xamna lu yalla indi duñ ci mën dara mais ñu fexé ay am ay stratégie ak méthode pour adapter wu au changement climatique am une certaine résilience bo xamné bi dinañu permettre ay fàggandiku yo xamné daf ñuy permettre ñu mëna vivre changement climatique ba inondation yi xaw wañéku ñu gëna a jëmbat ay garab mais surtout ñu jëmbat ay garab fexe ba nga xamné jamono ji soppeeku na dans le bon sens et puis du fexe ba du dem ba yak suñu mbéy yak suñu euh, agriculture mais yàq aussi suñu dindine ak suñu euh, ni ñuy dundee c'est-à-dire euh, lekk bi mën a euh, lekk bi problème mu lekk bi mën a wàññeeku té lekk bi nek de qualité mais pour jigéen ñi ak tam pour xalé yi xalé yu ndaw yi nga xamné tamit bu problème lek amé amee ñoo ciy gën a ñu fexé taxaw ci changement climatique bi ba nga xamné ni lool du leen yakal dara lool mo taxoon tay ñu dajé fi ci turu CDAO euh, nga xamné euh, coopération suédoise moko ko depuis 2019 d'ailleurs mu ngi ñuy pousse ñun jigen ñi ak suñu doomi xalé yu jigen ñi pour que ñu taxaw nek de ay militants nek ay pësteefu yo xamné yi dañu taxaw pour que changement climatique li mu laaj ñoom ñu ko def seen réew yi fukki réew ak juróom yëpp nag dinañ fi daje ku ci nekk dina am ñetti xale jigéen yu la représenté ñuy saluer loolu di ko rafetlu tamit ci turu AFAO laa koy def pour euh, CEDEAO ak euh, fonds euh, suédois